alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. Eh, ñu ngi ñëpp di leen ziyaara bu baax a baax. di wax ne waa mouvement ànd liggéeyal Baye Niass ñoom ñoo ñëw seet woon eh, Cheikh eh, Aziz Ndiaye. bëggoon a waxtaan ak moom ci lenn ci dund ak jaar-jaaru euh, suñu sëriñ Cheikh Mbaye Tuuti radiyallahu anhu euh, du ñu def euh, lu rek bàyyi ko mu présenté wu Cheikh Abdou bismillah Momar Ndao alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin xaq qadrihi miqdaan azim maa ngi tudd Abdoul Aziz Ndiaye ñu gën ma xamee si Azim Cheikh Baye Tuuti Niass Euh, loolu na jarul firi mooy sama bàyyi roxo ci zaar ci bàtt waaw euh, kenn laa nag ci taalibeem yi aussi kenn laa yit ci ñi nga xam ne am nañ sharaf mu ijaazaal leen ijaazu itlaax kenn laa yit ci ñi nga xam ne daal ne leen responsabilité si yenn ay cëram waaw Euh, jërëjëf euh, sëñ Aziz euh, bëggoon nañu xam góor gu mag googu muy Cheikh Baye Tuuti radiallahu anhu boo ñu doon tënkal Cheikh Baye mooy kan lan nga ñu wax. Cheikh Baye Tuuti su ma leen ko doon tënkal am naan Cheikh am na monsieur Onil Xaq kenn la rek coobaram la coobare yàlla yi Cheikh Ibrahim Mahmoud nettal na ñu ne nim ci jamono rek. ni mu dikkee si jamono moo lay war ne la kenn la ci kenn ci coobare yàlla yi ni wax na ne yaa xadi njaay mu yaayam dafa yaradaloon daloon doon jum am mu génn àddina mu révolté wu nag te xam ne fi mu ngi si pays xutbu te bàyyi juboo naag boromam mu dootu toogati si kër gi fii di jur du ko defati jur na ba ndax juram jeex amu fi doom bu taxaw ba wax ji àggee Cheikh Ibrahim nettal nañ ne dafa demoon ci raay ba toog fu ne ak raay bi na ko ñëw fële waaye xam nga loolu def ko ngir xaru ndax ko def rek nga yëngal borom pays bi ñu ne bàyyi yoonu bàyyi Omar Kata ne ko demal ci Xadi Njaay nga ol ma ko mu ñëw bañ mu ne ko ku dul fen mu yonent bi sallallahu alayhi wax ne ma ne Mahmoud lu mu fi gaaw a gaaw a jógee dina fi bàyyi ay doom te dañ dund nañ barke yaakaar nañu yaay na waat noonu la ma mooy nekk yàlla def am ku njëkk a judd tuddee ko Mouhamad Mahmoud gars yi comme turu deera dal dañ ko doon utal làkkantal moom lañ gën a xamee Pape Ñoxor mi dina fi ànd ak ooy ko ko waaye boo ne Pape Ñoxor ñu bëri moom lañ koy xamee ñaareel bi Cheikh Ibrahima Mahmoud la lu tax ma ne kenn la ci kenn yàlla ci gars yi yàlla yi Baye Mahmoud dafa mos a bëgg tuddee baa Niass doom. waaye moom comme dafa defoon bàyyi muy sëriñam bu soxna amoon doom dañoo si bàyyi dañoo si bàyyi ne ko soxna si wàcc na pare na ci bàyyi boo xool ku neex mu tuddee ko benn bés soxna am doom mu tuddee ko bàyyi dem ci moom ne ah, def naa tey lu def de soxna si am na doom tuddee naa ko sama sëriñ bàyyi na ko dafa teel soto gudd kooku mujjul dund daa mujj gën a àdduna ba Cheikh mu juddoo ba mu ñëwee bàyyi tuddee ko woppam bàyyi ko tuddee boppam te bàyyi mosu koo wax lu may sëriñ bi rek la ko doon ooyee même bu gars yi dafa naroon mer bàyyi na bàyyi leen sëriñ bi bi rek ko doon ooyee nag ñu euh, mu yaroo daf ñu toog da di waxtaan ak ñun lu bari yàlla daf may fulla ba muy xale ba léegi dégg naa même bu ko magam yi dafa loo xam ne war nga ko def du am jàmm ci journée boobu day dem si raay ba for ay xeer raay taxaw si buntu kër gi. benn grand place duñ ko fa def ku taxaw rek mu seen ba jëmbale leen xeer yi ba mujj gi ñëpp may ko jàmm fulla googu la mu musa am même c'est sport ak lépp parce mu si am fulla ci loola euh, ñu dugal ko muy jàng école français dem na ba am certificat d'étude yàlla mee ko mu nekkoon koo xamante ni ku am xel bu baax la woon yóbbu nañ ko kolma si nijaayam Alaaji Ibrahima Kouta fa doon jànge ba am certificat ba mu ñëwee def si Medina mu ne moom dafa bëgg dimbali yaayam parce que yaayam comme amul doom yu jigéen ñaar doom góor la am nee na moo doon dimbali yaayam presque si lu bari ci waañ bi nee na ma wol naa dégg bu bëgg a dee dem jaayi ko waaw nee na ma togg bu nekk mën naa ko ngir lan sama yaa amatoon jigéen man maa nekkoon si kër gi ak moom bu doon togg maa koy xool sëb la may defar lépp mu ne si laa jàngee lépp presque laa ko jàngee euh, dund googu am na ngeen maa ne waajuram ci xalem waaye ba mu demee bu ko def nag ko def mécanicien pour téye yaayam bu ko kenn téye ko yaayam yaayam fipp nag ko man doom sëti El Hadj Abdoulaye Niass ñu laaj ko masala mu tontu mu ma ko yoon fuuf moo ñëw ma ay million tegal ma fii dama nga jàngi Euh, comme kalaada comme ni nga xamee dëkk bi boo amut ginnaaw mun na métti lool waaye jom ji mu am mu jaar mbedd suuf si ba Égypte yoon bu métti la def dem jàngi wax nañu ne ba mu demee am na ñoo xamante ni ay nawle na ñu ngi woon fii ñoo ko fa jiitu woon dañ ko doon ree naan de day xëy parce que dafa ñëw te ñëwut si yoon amul bourse amul nàngam waaye ñaani waajur ak ngërmande yàlla ak fullaam mu nekk ci di jóo ko daanu ba mujj ga ña nga xamante ne sax yoon bu normal lañ demee woon moo ne mujjante yi euh, te bu pare yàlla may na ko mu nangu nekk koo xam te ne ku lu jafe lu ko yàlla may mooy nangu dogal ku nangu dogal ba mu duggee kër rek xam ne nuuru mu bàyyi mu nga fa mu ne mu dëkk nuuru bàyyi moo ko doon fóotal yërëm bi moo doon togg moo doon def lu nekk kër googu moo nekkoon fa fa la nekkoon nekk fa di jàng ak fulam ba mu jóge fii mu ngi jógee CM2 la jóge fii dem gars yi dafa ko test yóbbu ko second waaw te nee na presque moo doon nekk major ci si classe am année bi examen ba baccalauréat yi génnee ñëpp di xaar ndax dina am du am ba liste bi génn ñoo gis Ibrahima Mahmoud ci kaw gaa yëpp dañuy doyee du moom fekk nañ jël na pee taxaw bu yàgg euh, wax nañ aussi foofa tamit mu fa la jàngee ba am fa euh, ba mu ñib si fii dafa waroon tamit defaat maîtrise am waaye yërmandeem gu ëpp tax na mu am ñaari billet aller retour am kenn si mbokkam yi koo xamante ni amagutoon billet am ñëwagutoon te bugg ko faa bàyyi mu jël mu jël retouram mu jël billet retouram daggale ko ko biir ñoom ñaar ñu àndi ñëw waaye bañ demee bañ ñëwee aussi comme ja Sénégal métier wëññeeku jafe moo tax delluwaatut foofu la jël taraxa tijaan yi si mét nit mun a war a fa la jël taraxa tijaan ci loxo Cheikh Ousmane Faty Niass doomu Alaaji Babacar nekkoon imam si Medina Baye fii mhm. euh, xabru yonent bi lañ dajee mooy ko damaa bëgg jël tarixa tijaan sëñ naan faasi ne ko du sori ku tëdd fii tey si gri xabru yont bi moo jox tarixa bi Cheikhu Tijaan Cheikhu Tijaan moo ko jox maam maam Baay maam Baay moom ko jox ma jox la ko jeex na nag buñ demee ma bindal silsila bi mu ne ko doy na silsila bi doy na sëkk jarul bind ñu doy na uddul na chaadul nax wi parce fekkee na mu jël tarixa tijaan ci moom après xaal jàpp leen ñoo nañu nañ wasifa nañ leen kii xadara ñu ne xanaa xam fi de fii aaye loolu ul naaf ne ko yaay baay soo sikkee rek ñu arrêté moo tax mu xaal rek ne ko bisimilah ñu salan bi rek wër mu ne boo jamono jooja ñi nga xam ne ay tukkulóor ak woon ak aw sa yàq ñëpp ngi namm xadara jumaa ñu ngi fa wasifa mënuñ koo am euh, si lañ ko defee mu ne def fa du gaaw mu ne mujj gi ña doon sax ñoo leen doon garde ñoo leen doon sécurité bañ pare cheikh dinaax yi wax ne basan fàtte ne ko eh, sa taalibe bii dinañ ko dégg ci lu kaw si tarixa tijaan te liggéey na liggéey bu rëy rëy rëy waaye ne Cheikh Ibrahima Mahmoud ku amoon équilibre la musta jaawale dara gis nga ba ko tarbee ñoragutee dara ñoragoo la ko ñor mu nga ca dem jàngi bu ñëwee toog jàngale son bi buy saan football ay bëgg na football mu dem saan footballam même bu ñu doon wasifa kër Cheikh Baba ba te heure football jot te moom bokk ci wasifa bi day dem xëcc télé bi yóbbu ko si nekk toog kon day saan football na dana mujj gi sax ñu mer si loolu naan Baba kii bàcc lu mu nekk yàqu si ñu wasifa mu dem saan télé Baba ne baleen ko si lu nekk rek bés bu su war a génn dina si génn ba jëmmi jamono mooy dafa bëgg tarbiya lu ci baa wax ko baaba ne koy du ma napp yow loo nekk rek yaa ngi ci su fekk baaba sóob ba pare aussi natt ko boole ko ku ñuy wax Thierno Moussa Ka benn pël bu ne foofu euh, Cheikh Ibrahima mu ànd ak Thierno di tarbiya mu ne 33 jours la yàlla def mu am fatu xaw ma ban année la exactement mais 80 na 92 waaw ku yéex a tarbiya la. waaye lépp ambition moo waral lu mel noonu boobu tarbiya pare ah si dama faatu judd macha allah alhamdulilah 92 euh, kii di wax nii bind na ci lu rëy rëy rëy daal ni moo nekkoon secrétaire Mahmoud incha allah dina leen jox yu bëri après euh, ku am équilibre la loola ba mu ko ñoree dafa nekk rek ba yàlla may ko la mu koy may mu xam ne war fii ginnaaw boo juddoo pare da war a nam wala nga lekk lu ko may nga dee mu bëgg dem dox sa yëroon nag bëgg a nampe si ñaari wendi sëriñam mu Cheikh Ibrahima mu nampa sëriñ ak xaqiqa waaye baa ba la natt ko tamit nekk xam la boole demal ci moom far malheureusement kam ko boole loon ndekay moo tamit fa Cheikh Ibrahima mu toll fa la tolloon mu jigi baaba am nga la récupéré ko doxal ko mu ne sëyro boobu nag daana si wéttil na ko dama sëriñ Aliou Cissé bi ñu mu tuddati boos boos boos ak beneen leneen tur tamit Mounzir ak ñoom Mounzir mu bàyyi ñoom si naa Cissé daanañ toog guddi ba guddi gi jeex dañuy teg waxe baa ñees yi lu tax baay waxee nii lu tax baay waxee nii lu tax bàyyi waxee nii ñu si dox seen séeru yi di sa séeru yi ba ba muy ñëwee isaan baab ijaazaal ijaaz itlaax mais jabaram ji mu bokkal lal xamul sax ne sëriñ bi tarbiya na bay am ijaaza mu ñëw war a jël ijaaza bi dugal ko wala jab rek tëdd ba benn jamono ñuy waxtaan ci buntu kër yaa xadisaati am benn asila bu fa daanu boo xamante ne dafa laal maarifa am ton toppare gars yi na ko yow sa xel mu rëy bi soo tarbee woon kenn du la attan waaye mu ne boobu gars yi xamuñ ne xàmmewuñ xal boobu ñor naa bu yàgg yàggu rek baaba la mu yónnee ko ci jour boobu baaba yónnee ko benn lettre mu lire pare après te gars yi ñu ngi xool gis ne baaba daf koy sant ay nit ñu war a sóor ku tarbi du sóor kenn ñu ne koy kon tarbiya da ngay nëbbatu si jamono yooyu lu fëru tàkkee ci moom alhamdulilah si jamono yooyu lu fëru tàkkee ci moom kon Cheikh Ibrahima Mahmoud ñëwee nag ci loxoom ñun jamono jooja la dugg ci loxoom euh, maa ngi koy wax ak démb ba mbokk yi ñëwee ziar si maa leen gën ci daayira bi dumaa ëpp xam-xam waaye nag caraf bi moom man la ko yàlla may maa njëkk si loxoom ba ma ñëwee ci moom daa ma fekk mu nekk si nëbbatu gu métti bàyyi Cheikh Ndaw ebal ñu ñu dem ci moom man Baye Cheikh Ndao moo ma tarbiya ba ma tarbiya par ne man la ma fi dama digg woon a bàyyi jot na dootu ma fi jéggi da desati damay toxu parce que toxu gi nag day dem Dakar rek ndekk ma toxu gi mooy dem xëy ne ma naa la boole koo xamante ni bokk jamono man tamit li ma toog fii toog di ko xaar waxoon ma dara si laa dem bokki man tamit daa defee di saali kër gi ënd naa fi daara ñaari yoon yëngu di yëng kii waaw ba benn kii rek fajar àjjuma rek mu oo la ba ma ñëw mu am naa ndigal ci ku ma la war a boole dama la koy xadi faati ñes nga laaj ku ñuy wax bàyyi tuut maa leen boole yéen ñaar ba ma demee di ko wax daa foogoon ne man caaxaan lañ nekk parce que boobu mu si nëbbatoom gi mu ne waa dama leen ma xool ma vérifié ko su guddi gi mu jaar suuf ñëw la ko bàyyi chandaw ba léegi waxuma ko suba sama ñëwee mu ne waa d'accord na mais nag bi charte mooy bëgg ma gaa yi xam sax li ngeen dox lan la léegi suy waxtaan ñu ci yàlla ba suñu yaram tàng mu ne ko faxal moo bale fe waaw wala bu ñu ñëwee mu changé waxtaan mel ni kuy wax waxal football bugg sa ni ñu xam ne kii mu ngi si lam nekkoon moo tax bugg xubbu li bàyyi waxoon ne xubbu zuhur am na am zuhur moom bëgg feeñ nekkutoon mbiram yaa ngi dégg bëgg na bu wut nekkutoon mbiram waaye danoon xaar ba yàlla feeñal li nekk ci moom mu door a xam ne nii la diggante boobu nag yàlla feeñal na ko mu ta ñàkk feeñ muy mbooloo mi daf faydu bu commencé di ñëw gis nga ma dina bàyyi fii daf tarbiya ci sëtti bà ñees yi ci loxoom man li ma ci xam rek mën na téeméeri nit ay doomu alaaji Abdoulaye doomu ay Cheikh Ahmed Dam ñu bëri waa kër Baye Mbaye si ñu bëri ñoo xamante ni si loo xam lañ tarbiya eh, dinañ bu jigi bu ñu dajee moo tax seen nawle la waaye nag moom nekkal koo xam xamante ni gis nga tamit si màgg ren du jéggi moom loolu leen def téyewul kenn da ngay rendi rek jéggi soo bëggee na defaru boo ñëwee mu teel defar la soo bëggee dem feneen rek aussi téewul kenn ngir doon doon doon sëriñ wala nga doon taalibeem jëmm jooju mooy Cheikh Ibrahima Mahmoud bañ ñëwee nag ne ko dañoo bugg am daayira sa kër gi fii mun ne ah wax ngeen loo xam ne nag loolu moom bëgguma samp lu tax ñoom ñëwaat ñaanaat ko ci mu ne ba léegi wax naa leen bëgg ma samp luy tas da may garanti ne bu ma sampee lu tas ndeysaan boobu jamono ji xaal waxee suñu làmmiñ ñi ñoo ko lu tas incha allah parce que mbiram lu tas dafa war a liggéey mu ne kon la ñu demaat ci baaba fekk baaba amoon na daayira bu mu sampoon kër Baye Mahmoud tuddee ko uxuut fi la ne diggante Baye ak Baye Mahmoud seen bokk ak yàlla rek la ne ñoom seen diggante moom daayira bi ñuy samp uxuut fi la rek lay tudd waaye këlëg këlëg am si biir daayira ba xaw a gëmm moom ba mu dee ba nga xamante ne bëgg na demaat nag mu demaat ci baaba encore ànd ak soxnaam Seyda Xadijat Abdourahmane Fall ñoom ñaar ñu dem fa bañ demee ñaan ko ndigal baaba ne ko sama diggante yow it uxut filaa rek la comme ne Baye Baye nekkee woon uxut filaa sama diggante yow loolu rek la delloo waanal tur boobu mu ñu ne am naa ndigal ci baaba kon nag kaa la ñu dajee def daayira mais sama charte nag lii la ku sa tas ngir yaatuñ sa jëkkër génn nga sama daayira ku jàng si école amoo moyen génn nga sa daayira génn nga daayira bi ana ana boo xam ne daf ñu teg man ak Cheikh Bachir ak Moustapha nañu ku amul prix mën a daaxal daayira bi ana boobu ñëpp am prix ana boobu dañoo jàng jàng jàng ba bu ñu laaj sax nañ dañ tënt loo xam te laajuñu ko ngir lan parce xam ne ne li muy wax dina ko def waaw ba pare aussi ne képp koo xam te ne am nga problème ak say ah mu jër gis na yaa leen génn nga daayira bi ba pare aussi kenn ku nekk charte yooyu mu tegal ñu ko ne pare aussi dañuy dañuy dañuy dajee mën a génn bis bu ne par semaine bu ne jàng téere bàññees yi bàyyi nax si nit dafa yomb tool dafa teel parce bàyyi yàggut bàyyi wax na ñu dégg bàyyi bind na ñu gis bàyyi jëf na ñu gis bind na ba fii wax na ñu dégg def na jëf na ñu gis kaay leen nag yéen amu leen chance fekkee bàyyi ji def ngeen di gis waaye am ngeen chance mu wax ngeen dégg am ngeen chance aussi it bind na ba fi waaye kaay leen ma ànd ak yéen bokk tëral ko ngir ëllëg bu ma sama bakkan bi man ommatee ba ma dem ci loo xamante ne war ma see dem ngeen xam ne lii du bàyyi yës sama bakkan bi la te wër leen ma ma rek dem dem seet lu bàyyi wax sëriñ bu am engagement boobu du nax kenn parce que jamono jii kenn ñemewut sa taalibe yi li Baye Niass wax dëgg-dëgg kenn ñëmatu ko wax am na lettre yoo xam ne Baye bi na ko mu xam ne bu nekk ba ko doon firil bi ba par di ñuy gis taalibe mu xam ñàkk taalibe parce que dañu xam ne lii du Baye waaye moom la nekkoon la nekk waaw kooku mooy Cheikh Ibrahima mu si euh, wax nag relation ma ak ay muxaddamam doom ak bàyyi la moom moo newoon suñu bàyyi ñun ñëpp tey suñu mbokk yi naw nañ ñu ku ñu war a ragal ragal na la ngir jëm Cheikh Ibrahima Mahmoud su amee problème dafa ñu taxaw nga xam ne kii ma sa sa bàyyi la ci dëgg-dëgg du bàyyi dara mu sedd dana wax mu ne mën a sama ku ma àndal ci yàlla bu ko dëgg demee ak fu mu mënta nekk ba Kédougou ba Tamba ba fu mu mën nekk su ma sañoon man maa ñëw fekk ko dëgg bi ñu nelaw ke mus ku mus a ñëw fekk seen biir tëdd nii du noppaleku ke mus koo gis man de ba ma ko gisee tabaski bi mu mujjee def ma ñëw fekk ma tëdd fa tey bi di nelaw nii man lii maa ngi ko door teg bët maa ngi ko door teg bët boo ko doon fekk mu nelaw fekk mu toog siège nekk si dara ma nelaw fekk ko ci wala mu si oto yi nelaw wala kii nangam kooku mooy Cheikh Ibrahima Mahmoud ànd ak ne lam am si ay qualité <laughs> mënu ma wax lépp mais daal su am équilibre la rek day na sëkk waaw asalaamaaleykum alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah